Bonjour à sénégalais yi Sénégalais ngi suis ñëpp pour nekk sa tur ak sant waaw man euh, vidéo pour informer à l'opinion publique nationale et internationale que depuis le 11 <coughs> septembre 2021 ginnaaw bu ma génnee ñaari vidéo <clears throat> yi nga xamante ne dama doon dénoncé injustice bi nga xamante ne euh, sama kilifa yi ñu ngi koy def te ko jëmale si man maanaam le général euh, Fall ak la général Thiaka Thiaw bu ma ko dalee wax ci guddi samedi ay deux heures du matin bu coïncider le 12 septembre Je ma indi à hôpital principal pour voir le service psychiatrique. bon ils étaient sous escorte de GIGN euh, la section de recherche la brigade de, de la brigade de recherche de Mour, la brigade prévotale de Dakar la Légion de sécurité et de protection, c'est-à-dire le commandant d'unité du 2e escadron Diop, capitaine capitaine euh, Papso, et commandant de Légion Mohamed Djiba Nous avons presque une délégation de 20 véhicules Nous avons jël sama sama kër may avons ma à heures du matin maa ngi daje ku ñu waxal commandant Khadim Fall docteur la moom lañ ma présenté moom mun ne ma médecin chef gendarmerie jox nañu benn certificat médical bu wane ne yow dañ la war a indi fii hôpital psychiatrie jox ma won ma encore beneen réquisition d'internement ba nga xamante ne commandant brigade prévôtale Pape Mbagnick Sène mom moko bind buma ma ñaari kete ba pare ne ko ne man dara daluma way nak comme acte de commandement la man mi nga xamantene man lañ fi indi ken duma consulter demandé wu ma pour consulter wu demandé wu ma pour ñëw service psychiatrie man j'ai fait une vidéo publiquement ma dellu soir rek euh, pour wax ne ba ma defee ba ma ba ma bindee ba ma waxee ci vidéo yooyu ba pare ba ñu indi ma fii le 12 ci lañ ma forcé fii waa GIGN presque une vingtaine de personnes fii lañ taxaw forcément daaneel ma fii parce que balaa ñu may daaneel sax dañoo xeex xeex bu metti xeex bu métti métti métti métti métti la ñu xeex fii ñu daaneel ma pikiir le 13. ci le général bi ak staff état major bi yëpp ñëw fi hôpital principal bu ñëwé général bi mo dugg ak médecin bi parce que instant yoy bobu déposé naa benn plainte ba nga xamante ne ko adresser le procureur de la république de Dakar ñom bu yégué yégee plainte bi ci la ñëw rencontre ma na ma jëlal médicament yi ma ne du jël médicament yi ñu forcément ma jël médicament yi instant yi les infirmiers si boppam ñoom ñoo ñëw ba fii ñu ne eh, médicament yi ngay jël nii mun na la indi des troubles sexuels mun na ko coaguler sa sang mun na la rey te man maa ngi nii hôpital ba léegi ñu séquestre ma lépp lu ñu ma defloo fii wax naa leen tension boo leen ko jëlee ci man dangeen ma forcé boo leen jëlee fii poids ci man da ngeen ma forcé loo leen def ci man da ngeen ma forcé depuis bu ma fi ñëwee ba léegi damaa bañ consulter wu damaa bañ consulter wu te ñoom ñu fii. ëllëg nag lay bañ ci biir dara jot ma fii ci hôpital bi ma jëlee fi feebar wala ma jëlee fi leneen loolu moo tax may wax ci vidéo bi staff bi ñëw nañ fi gendarmerie yëpp ñëw nañ fi il paraîtrait que Alexandre il a remis des enveloppes exorbitantes d'argent au haut gradé de la gendarmerie nationale ba pare jox leen ay terrain jamono yu muy nekk directeur général de l'urbanisme loolu nag mu nekk loo xamante ne pression bu rëy la su ñoom parce que bu ñu ko deful coow bu rey mooy am loolu moo tax ñoom seen i wàllu bopp ñu may teg pression nii nee na pour utal ma kayit dof te du ma ko nangu tey ma ko nangu ëllëg parce que xam naa ne kayit yu ñu ut noonu suba la ñu bëgg pour xeex bu ñuy taxawee fii di xeex affaire suuf ñu taxaw ne villageois yi kii dof la dafa interne am na kayit am na nii dara jotuma maa ngi ne hôpital principal te xeex bu ma tàmbaloon ci départ bi ba léegi maa ngi ci ci xeex boobu laay wéy bougé ma ci maître moom lay continuer ba mu jeex takk xeex boobu duma ko mos a sede ba ma fi ñëwee le douze ba léegi ba ma nee commandant Fall kenn duma ma consulter ba tey kenn consulter wu ma kenn si ñoom consulter wu ma dañu ñëw rek bind ñëw rek teg ñëw rek def maa ngi nii tous mes visiteurs que soit su parent xarit compatisant ku fi ñëw ci bunt bi ñu ne la du doo dugg ci bunt balaa wax waxuma la service cicatrice de ci buntu entre principal lañ joxe consigne na kenn du dugg à l'heure actuelle man je me que man dañ ma séquestré lii abus d'autorité la lii détention arbitraire la lii lu leen neex la ñu def ba pare trois gendarmes ñoo fi fanaan ak man trois gendarmes ñoo xamante ne fii la ñuy taxaw di rapporter général bi lu fiy xew ak lu nga xamante ne moo fi am ci hôpital bi man nag je préviens l'opinion nationale et internationale jusqu'à présent man séddawu ma ci lu ma nekkoon loolaa nekk ba léegi gars dañoo nangoon sama téléphone ñëw joxaat ma sama téléphone moo tax ma defaat vidéo bi pour yëgal ñëpp lu xaw fii di ci hôpital ci Katrick jërëjëf. pour mu def ko voie militaire yónnee ko ñi nga xamante ne mooy procureur bu procureur bu tribunal bu grande instance bu dakaar mais loolu yëpp dañ ko esquiver bañ lank ne duñ ko def. indiwaat ma sama plainte man ma toog fii di dund loo xamante ne lii dama ne séquestration la parce que kenn consulté wu ma ba pare ñu ngay topp di ma forcer ne par la force ma jël garab yoo xamante ne kenn bindaluma ordonnance kenn joxuma ordonnance man nag ci sama gëstu ak infirmier yi fi nekk ñi nga xamante ne dañ maa wax ñu ne ma garab yi nga xamante ne moom lañ nga bindal mën na pousser mu coaguler sa sang nga wala sila la mën def ay trouble sexuel may interpeller le président de la république l'opinion nationale internationale ñu bàyyi xel ne man depuis le 12 septembre maa ngi fi ñu séquestré administrer des médicaments par la force ne armée la may bañ nak suba dara bu arrivé fi suma fi wala benen febar dal ma fi man sam walu bop ma yegal opinion national international ke médecin yi fi nek service psychiatrie ñoo ma ko teg wax ba son woo naa ku nek fu mu meuna wote wote na fofu pour ñu wax ci li lu ëpp nak tuuru lu ëpp tuuru professeur bu fi nek chef service psychiatrie muy professeur Tabara Sila Diallo momak ak le professeur Gabriel Ngom ils sont de la même promotion C'est lu mu wax veux Gabriel Bobu, Alexandre Ngom bi nga en train ñun été depuis 2015 daan bu nek. def lu nek ci aduna pour ma gendarmerie wala pour ma te loolu wax ko ko fu nek fu mu nek ni nak comploté nañ né nañ ma kayit ma ne leen loolu moom kayit moom kayit tof moom xalaat xalaat leen ko jar na moom ma ma teg sama liggéey fii bàyyi ko dem toog dëkk ba ndegam si tànk yooyu lañ nekk dem bu ci guddi buñ ñëwee ne naa leen génne leen ma fii ma nekk ni sama place du fii sama mbokk yi jógee nañ dëkk ba ñëw ba fii hôpital psychiatrie ne leen wax nañ rencontré nañu médecin chef bi ak euh, commandant bi nga xamante ne moom moo yor dossier bi commandant Fall ak Lo wax nañ leen ne ñii kii dara jotu ko ba mu nekkee xale ba léegi élève bu brillant la mosul am problème ñu ko fi jiitu nag naan ay dafa am problème bopp ay dafa dafa nii dafa na il paraît que même Gabriel woote na fi Alexandre woote na fi nee na man dam ba may nekk xale damay am métti bopp man nag damay wax vidéo bi dama koy def publiquement ñi nga xamante ne xam nañ ci fu ma jaar Sam Samba Jon laa jaar élève la woon primaire euh, sacré kër bu Gandiaye jaar CM Samba jon jaar lycée El Hadj Malick ñu ma xam yëpp ci vidéo bi képp ku ma xam bu fekkente ne mos nga ma xamal méttitu bopp wala feebar boo xamante ne daf may daanal na ma taxaw ne lii ak lii ak lii ak lii ndegam nag fii senegal xaalis moo fi doole fii boo joxe ay nit ay millions jox leen ay terrain ay kër lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy def man amul ma ku ma fay nit pour mu wax. Alexandre son petit frère mu Nations Unies milliardaire son autre petit frère le président optique des techniciens de l'informatique de communication du Sénégal Benen frère entreprise électrique électricité la yor frère bi professeur Gabriel Ngom bu ngeen dégg man ñooñu ñoom ñëpp ay sot di professeur Tabar Sylla la tax na ma groupe nit ñoo taxaw di xeex ak yow ay groupe nit ñoo taxaw di xeex ak yow te groupe yooyu Alexandre ak ay bokkam ñoom ñoo def bloc yow itam sa mbokk ñu def bloc ngeen di xeex te il paraît que sa doom bàyyi nekk foofu sax jubóowu leen mu nekk boo xamante ne affaire de village mu ñëw bi ba fii service psychiatrique nee naa leen nag sama bakkan laa ci teg man Théodore sama bakkan laa ci teg jaral na moom ma bàyyi sama liggéey waaye Keita Dof moom kenn du ko teg sama loxo li ñu bëgg mooy suuf soosu nga xamante ne koy tey jii nii bu ñu ma wutalee kayit dof su ma ñibbee dëkk ba bu ñu xëccoo di am ñu naan kii wérul wala kayitu yoon bu naree am ñu neen kii wérul am na kayit bi am na kayit bi may interpréter le président de la république plus précisément Tabara Sylla le colonel Tabara Sylla bu fi nekk mu jël ay mesures idoines la réquisition la réquisition a été fausse le certificat médical a été faux te porté naa ci plainte plainte baa ngi dégg amen jox naa ko à qui de droit ñoom neen nañ duñ ko yóbbu man loolu la amoon lu may wax pour opinion nationale internationale ñëpp yëg lu xaw